la ndax euh, bu dee ci xam nga looy def lu ne la ca di ko njëkk def muy première édition man nga am ay jafe-jafe yu bari waaye nag euh, jafe-jafe yi bëriwut ndax lu ñu lu ci ne dañuy tiim ndax kiñ koy defal moo toll noonu ndax moom dafa waxoon ni nosu mbindeef yi ci jamonoom ci loxoom la ko yàlla teg zimaamul wara asri la dallahi fii yadi wa ma rumtuhu min malikin qaada bil ani te lépp looy def rek yàgg doomu aadama yoo koy def comme nag ki ñu koy defal xol yëpp nangul nañ ko moo waral lépp dañoo tiim bu ñu waxee dëgg daal lépp dañoo tiim ndax ku ne lam man ak fam manee ma ngi koy def moo tax njàmbat ñun duñ ko def mukk ñi ngi sant rek ñi ngi sant tey ñaan mu gën jëm kanam. waaw ñaata ndongo daara ñoo ci participer ci lii ñuy tuddee final bi tey mooy mat nañ fanweer ak ñeent départ ba ëppoon na loolu. waaye fanweer ak ñeent ñoom ñooy ñi nga xam ni ñoo participé ñaari ñi nag euh, di waa étranger ndax xam nga bu ñu waxee international keroog ba ñuy lancé fii le 29 janvier dañoo waxoon ni c'est un concours international waaye nag comme dañuy door a tàmbali te képp kuy jógee bitim réew di ci ñëw prise en charge bi grand prix bi moo koy yore ndax ko xam Touba xam sëñ Touba xam ni teraangaam da koy yaatal jëme ko ci ñëpp moo waraloon ñu ni kon ki nga xam ne da ciy participer au niveau international même au niveau national dafay doon koo xam ne grand prix bi moo lay jël en charge moo waraloon ñu ni comme ab début la te xamaguñu nu muy demee ñu jël ñaari réew benn bi réew bi mooy Mauritanie nekk ci suñu wàcc beneen réew bi muy Burkina Faso su ko defee loolu dafay symboliser euh, maanaam Afrique euh, arabe bi ba waaye it Afrique gu ñuul bi ndax loolu lépp ci ci ñoo bokk Afrique waaye ñoo bokk bitim réew ndax boo xasee ni boo xasee génn réew mi rek lu génn réew mi bitim réew lañ koy tuddee ak donte sous régional lañ koy wax waaye dañoo bëgg a tendre vers ñu maanaam euh, ci penku bi ak ci yeneen réew yi gën a sori yëpp ci lañ bokk fu jullit nekk tey jàng alxuraanul karim fas yéene nañ incha allahu taala par étape ñu di leen invité ñu di ci ñëw moo tax kon ñaari candidat yi Mauritanie la ak Burkina Faso xam naa dangeen leen gis bu ngeen siiwaree concours bi nag xam nga concours bi ñetti fani alxuraan la tey euh, dañ koy inscrire ci programme mu maanaam màggalu Touba ci njëlbeen bi dégg ngeen ni ko sëñ Bassirou Mbacké euh, annoncé woon ci bu muy def CRD bi waaye dégg ngeen bi muy def déclaration ni mu ko annoncé woon noonu rek la mooy lan yëngutub alxuraan la di ñetti fan yoo xam ni dañ koy def jàng alxuraanul karim ñaari fan yi mooy tey mooy premier jour bi ñuy remercier bu baax sëriñ Euh, Ahmad Badawi moom Cheikh Mouhamadou Al Fadel ci teewaayam bu rafet ndax bi ko déggee rek bi ñu ko sàkkoo ci moom dafa ñëw teew waaye di remercier bu baax Serigne Cheikh Lappe moom itam ci teewaayam bu rafet bi ñu ko sa bi ñu ko sàkkoo ci moom dafa daal di ñëw ngir teewal Serigne Mouhamadou Mountakha waaye di remercier bu baax Serigne Cheikh Abdou Bali ci teewaayam bu rafet ngir ñëw représenté lépp luy màggal gi ak Cheikh Mouhamadou Bachir rek famille bi yëpp waaye it di remercier bu baax Cheikh Mouhamadou Xabbaan moom mi nga xam ne liggéey bi ci ronam lañ koy defee ndax liggéeyal sañ tubaa ci tubaa lépp dañ ko organiser te ku ne xam na ni wàllu njàngum alxuraan bi moom moo ko jiite moo tax duñ def dara luñ yëgawut ak moom bi nga xam ne nekk na ci it yu jàmp it yow na na fi Cheikh Ibrahima si gis ngeen ouverture bi sax moom moo ko def ndax lan loolu moo war a am ndax liggéey bépp ci loxoom la tegu kon daal 34 candidats incha allahu taala ñoom la ñu départagé tey mu nekk nag ci ñetti faron mooy ñetti banqaas banqaasu mokk alxuraan man koo firi si nga xam ni da koy mokkal man koo firi gis ngeen yéen seetaanal seen bopp loolu en direct la waaye mokkal alxuraan ba noppi mokkal ko mokkati mu rafet waaye mënoo ko firi boobu it gis ngeen ko boobu egseegul tey feeñagul waaye bi mu mujjagul ngeen ñu nekk ci nii bi bële jàllee bee moom jeex na waaye ñu ngi ci deuxième bi mooy mokkal alxuraan te mokkaloo alxuraan waaye jàng ci lu mu gàtt gàtt fukki si muy xale yi ngir ñoom it ñu mën leen ko encouragé nga xam ne kon concours bi dafay mel ni maanaam ñetti pàcc la maanaam liñ naan wenn wenn xeer nga am ci ñetti picc waaw all in one daal moom la maanaam benn nga man ci am lépp daanaka mooy ñi nekk ci kaw ak ñi ne ci digg bi ak ñi tàmm door a tàmbali moo waral kon tey ñi ngi ci deux premier jour ouverture bi fi mu ne nii ñi nekk ci tafsir bi jàll nañ juróomi candidat lañ ñeneen ñi ci topp ñi ngi loolu moom ba léegi faaw ñu dem ba ginnaaw suba ca ngoon bala ñoo xëy daal bu fekkee ñëwaat ne ni ngeen laajaan ñu wala le matin danañ ci mën a wax mën naa yéen mën naa min ñu bàyyi ko muy kumpa ba egg ca bis ba rek ñu joxe chèque yi ngeen gis ni li am waaye dal fas yéene nañ lu fi ñëw ndax fi ne dañoo bëgg nu mu gën a baree moo tax euh, comme ñu ngi ci liggéey bi bokki taalibe fu ñu mën a nekk ñu ngi leen koy fàttali ndax bu ñu danañ ci joxe lu luñ mës sa joxe ci ab concours ci biir Sénégal waaye nag ci fekk mu mu tombeek suñu borom dogal ko moo tax incha allahu taala maanaam moom lañ waxoon ci njëlbeen mu néew néew daal nit moom dana ñi jiitu danañ weesu juróomi million mu néew néew la gën a bari nag xamaguñ fu muy yem ndax mi ngi aju ci ndax ba léegi ni jaayante yi ñu ngi koy yónnee danaa ci occasion wu sax ndax kon kii bi ñu joxe woon dafa plafonné mooy numéro Wave bi waaye teewut numéro Orange Money la 551 23 13 mën nañoo continuer di ci yónnee par Orange Money